nañu dem xool Jet Café Sadia naka la féete li nga xam ne moom mooy anniversaire am te ñëwaat léegi ay ca Aba mon ami mon frère maa ngi lay ziar bu baax. mais Kole maa ngi lay fay. lan wax avec Kole laay xale bi rëkkatal di yëgal niveau yi. déggal loolu def na mbax ba mu très bien tey lu xew ma ne maa ngi fii ci Nord déggal loolu nit ku yàlla baaxal di ndaanaan ku li fadri di way li way li muy Sadia fii si Jet Café tey la nar a toj nee naa la bisu anniversaire. mais Kole ki nu mu lay xoolee nii nag a taalibe Baye Niass bu baax bi di jibi say macha allah rabbi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi nuyu sama yaay ja sa Ndar di ñaanal sama waajur bi ci biir suuf yàlla xare ko àjjana euh, wax dëgg neexal di nuyu fan si ak am di jàmm yi euh, di nuyu ñëpp di nuyu Abba Abba maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay dëgg neex yàlla sagal nga comédie. Hmm? yow da nga fekk comédie wax dëgg neex yàlla nga yëkkati ko ba ca kaw. tong tongal ko daal di koy ñoŋ ñoŋal dugal ko grand théâtre def ci lu kenn musta def. macha allah rabi kontaan nañ ci yow. jaajëf jaajëf mon frère yaa ngi ci biir. jaajëf ci léegi xam nga nuy def abaa dañuy def nag euh, mosali ak ñamali ñu daal di doxantu nank ànd ak collé laay ne naa la collé bu ñëwee réew mu yëngu réew mu yëngu ñëpp ñuy bëgg collé laay ñu dugg si biir daal di xool sa jaar defalati ak li mu indeeti nee naa leen daanaan la tey aja aja ñu dugg waa Pape Samba ñi am seen yére <laughs> ay pecc bi neex na waay léegi léegi <laughs> naa maanu waaw xam nga Sadia moom sama doom ndey la ñoo bokkandoo école musique ñooy ànd mën a moom di wàcc suba ngoor xam nga moo tax su xewlee rek sama yëf la moo tax yow waaw waykat laa ah waaw ñëw naa fi defal ko premier partie acoustique donc di ko ñaanal ndax bëgg na musique bi du ko bëgg ci xolam moo ko gënal lu mu am yàlla teg ko ci yoon bu baax xam nga réussiral ko def carrière def carrière bu nice mu am nekk artiste international merci beaucoup. ah waay Pape Samba eh dama ni eh eh dama ni eh, eh, fii neexoon na de eh fii neexoon na soirée bii neexoon na xeeti neex goo xam ni waay Pape Samba Pape Samba. ah Samba police ñëw fekk Samba bi Serigne Aliou ngi ni taxaw. Ah, sama nawle mi ngi nii sama sama sama xarit. nama dewal waaw da nga def baax na tey. waaw lépp ci sa <laughs> waaw sa jaar gis nga moo ko jaar. war a waaw mi ngi noonu dafa alaadawme bu baax a baax moo tax xam nga rek euh, dañ fiy teew xam nga géréel ko bu baax a baax parce que sa jaar moom da di sa Sénégal euh, baax na yaru na waaye li muy def tamit mën na ko macha allah donc euh, jàpp si day day neex te day gaaw. waaw moo tax ñu ne kon tey du yoom non du yomb yéen euh, kii ndekki nañ ba pare servir gu ñu añ te après dañuy reer kon tey da ngeen nar a niveau yi def njambax ba pare def dessert ayca mi ngi noon foofu nga xam ni mooy ca Jet Café ca Nord Foire ànd ak ki nga xam nii mooy Chadia